sunu bàyyi bii fi jóge léegi sëriñ Babacar si Mouhamadul man sëriñ Babacar si Abdoul Aziz jotalee gën jaa rafet yi jotal ko it ca gën jaa yaatu dayu jëm ci wàccaay wi nga xamante ni wàccaayu mawlidun nabi zikra mawlidun nabi sallallahu alayhi wa di bés boo xamante ni àdduna bi ñëpp miin nañu Tiwaawan bu jotee ñu yegg ca ñu di ko euh, waajal jëm ca wàccaay wa pour fas yéene fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi doy ci képp ku ñuy roy boroom kër gi nga xamante ni moo daan wax ni a ah, am nay sëriñ yu ma nangu gëm leen dogale sama digganteeg suma boroom waaye nag bu roy jotee kenn lañu ma royloo mu di sayyiduna muhammad alayhi salaatu salaam moom moomu nga xamante ni yàlla mooy ki nga xamante ni moo ko taa def ci moom li def ci moom sëriñ bi yaatu lool ci wax dayo yonent bi ak li nga xamante ni moom la boroom kër gi taamu woon ci moom ba joxañ ñu ko nun njabootam nun réew mi moom Seydil Hadj Malick moom moomu nga xamante ni moo taamu woon di organiser bu ñu demee ba fekke ko nangoo naa ci kenn ci njabootam mu wax ni bés bi mu njëkkee célébrer gàmmu Tiwaawan ne mu ngi ko célébrer wàcce alquran jàng bi ñu koy jàng alquran jooju ñu jàng xaaj genn wàll gi mu jàng ko genn wàll gi alxaaji rawxaan ngom yal na yàlla dolli leeram jàng ko ki xaaju kaw bi kii xaaju suuf bi ba ñu paree mooy première euh, bis bi mu njëkk a célébré bis bi nga xamante ni moom la ñuy waajal mu di guddi yonent bi juddoom nga xamante ni yërmande la mbaax la boobu woote nag sëriñ bi wax ko ci yéenay kilifaam sëriñ Pape Malick indil nu ko moom rekk la nuy dolli di ci yokk li nga xamante ni warees na ko caa yokk mu jëm ci yaatal wooteem jëmale ko ci xulafaawu yi wax na ko sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour yal na ko yàlla yokk dëgëral wooteem bu dee woo ñam cay njëkkee mooy ñi mu bokkal sasu liggéey bi ak ndono mu di xulafaawu yi di njiiti diine yi nga xamante ni ñoom la bokkal ni mu ko waxe léegi nee na itam yamul ca ñoom dem na ba ci ñi nga xamante ni ay nawley diine lañu te bokkuñu na Muhammad mu di alkanisa di église bi defe gàmmu gi saa yuñ koy woote ñoom dana leen ci daggal wàll ñu xam ni ñoom it ñoo bokk senegaal ñoo bokk adiyaanu samawiya nga xamante ni diiney kaw asamaan fa mu jóge ba yegsi dana war a jaadu ku yàkkaar Seydina Isa ak ku yàkkaar yonent sallallahu alayhi wa ñu àndandoo bokk lël waxtaane ci solo jëm ci nanuy def ba ànd bi gën a yéwén mbokkoo gi gën a yéwén jëflante gi gën a yéwén yaakaar naa ni loola nag moom la jotal waxit ni mu ngi woo mbooleem ñi nga xamante ni ay ilimaan lañu di ay ilimaan yi jàkka jiite jullit yi ci jàng ci jàkka yi jiite jullit yi ci warteefi diine yi jiite jullit yi ci lépp loo xamante ni dafay rafetaluk mbokk ñoom ñooñu sëriñ bi mu ngi koy yaatal sunu bàyyi dafa ñëw rekk wax principe bi nun nag nuy dugg ci benn bennal ñi nga xamante ni ñëpp ñoo jëm ci woote bi nee itam ci biir woote bi ba tey mu ngi woo ustaasu daara yi moo xam ñi féete ci daara yi diine yii nga xamante ne ñoo aju ci euh, risaala sayduna muhammad waaye nee na itam ñoom ñooñu noonu la cay boolewaale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jàng yu mag yi mu jëm ci université yi daara ju mag ja ca Dakar daara ju mag ja ca Ndar daara ju mag ja ca Saint-Louis daara ju mag ja ca Thiès daara ju mag ja ca jàmm ca Bambey daara ju mag ya ca ak mboolem ecole yi dayoo gañu toll étudiants ya fay jànge mu boole leen ci boobu laxas professeur yépp mu ngi leen di woo ndax boroom kër gi dafa daan wax ni réew mi di Sénégal gisuma ku ma fi doonul sa sëriñ ndax ki ñi fiy jàngale ñépp genn wàll ga ci man mii la ñu jànge kon bokk na ci professeur professeur yi moom moom itam نينا ووتي بوبو مونكو جيمالي تي المنظمات الاسلاميه خامنتيني موي موفمون اسوسياتيف ييغا خامنتيني نيوي ييغو تي بنجو ديني مو خام دي حركه مو خام دي جمعيه مو خام بولم mbolo bu yëngu te yëngu ba jëm ci yewenal mbaxu diine ak mbaxu mbokk ak réew mii fa tabarakallahu xalifa bi ci làmmiñu sunu baay Babacar Sy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz wax na ni mu ngi leen di woo waaye xalifa bi ba tey Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour wax na ni ñi ñu tuddee ay ambassadeur di ay sufara adduwal alxaarijiya te yàlla dogal ñoom ñooñu ñu àndandoo séq wëllëre ak réew mi di Sénégal te nekk ci biir réew mi xamante ni seen jëflante dafa nekk jëflante bu rafet nee na ñu ngi leen di woo ñoomit ci bii woote nga xamante ni ki ko moom kenn la mu di gën ji di xayru rusul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen nekkin ci senegal di nekkinu ànd ak jàmm nekkinu jëflante nekkin wu rafet a rafet dimbalante ak baaxoo li nga xamante ni moo gën a yaatu nee na ñoom ñëpp. bokk nañu ci woote bii nga xamante ni ki ko woote dafa bëgg rek partager ak ñoom yiw wu rëy tax mu jëmale woote bi ci ñoom nee na bu ca jógee mu ngi woo ñi nga xamante ni ñoo di parti politique al ahzab asiyasiya nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi di yëngatu ngir lépp loo xamante ni dafay defar ci réewum Sénégal ànd moo xam di parti au pouvoir moo xam di parti wu opposition opposition bi ku ne xam na ni yaatu nañu ñoom ñëpp li jaadu woon mooy lim seeni tur waaye bu ñu waxee parti au pouvoir ni parti de l'opposition xam nañ ni xalifa bi tebbiwul kenn ci ñi nga xamante ni ñoom la séqal yiwu defar réew mi yiwu defar Sénégal yàlla nañu ci yàlla yóbbale nu àndandoo defar ko muy Sénégal bu teey Sénégal bu dal wax na ni itam mu ngi woo as-saxaafiyoon ñu tuddee leen ay journaliste tey ñoo fi waaye bu ñu ko jaaralee ci yéen mooy jàll ci maison de presse yi ngeen représenté nga xamante ni kenn ku ne ah njiitu euh, kilifa gafa nekk di yëngal ci wàllu journalisme ñoom ñëpp defe naa matele nañu ci dégg woote bi nga xamante ni xalifa bi mu ngi koy partage ak ñoom pour fas yéene bokk ak ñoom yiw wu rëy yi nga xamante ni mbaaxu kenn rek lañu cay melal mu di gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam nee na itam woote bi mu ngi jëm ci képp koo xamante ni yàlla dénk na la mën-mën mën-mën ba jëm ci lépp loo xamante ni dana dalal yéwénal yoonu dem ak dikk mu di transporteur yi nga xamante ni ñooy indi njaboot gi defe naa jaar na ci léegi jaaruwaay boo xamante ni ñaan leen dal ñaan leen teg ci yoon ñaan leen it ordre bi nga xamante ni moom lañu ñu war a àndal ndax pèlerin yi nga xamante ni ñooy euh, duyuufu rahmaan yi ñëw di dugg si fii ci pénc mi nga xamante ni péncum yàlla la pèlerin yooyu soxla nañu bu ñu tàggoo seeni njaboot ba bëgg ñëw pour sofal si Tiwaawan ku sañoon boo jógee sa kër ba ñëw ñëw ci jàmm ànd ak jàmm ci yoon wi ba yegg si fekk fi jàmm bay dellu ànd ak jàmm ja ba keroog ngay delluwaat ci kër loolu tax nag xalifa bi yaatal wooteem jëmale ci ñoom xam nañ ni toll nañ ci jamono wut waaye wut nag mënees naa wut waaye mëneesula wut a wut a wut ba am lu ëpp wërsëg te li ëpp wërsëg nag ku ko am ku ne ah na nga xam ni jàmbaar nga waaye li ëpp wërsëg mënta jariñ mooy waral yenn ci accident yi mooy waral yenn ci catastrophe yi yàlla bu mu am yàlla bu nu ko gis yal na yàlla may ku am mébétam gàmmu si ci pencu Seydil Hadj Malick yàlla may la nga dugg ci oto ba wàcc te doo am benn tolof tolof ci yoon loolu tax nag mu wax ni nanu yaatal jëmale ci chauffeur si wax leen ni guddi yonent bi seen guddi yonent la guddi Sénégal la guddi eh, lislaam bi la ñu ñaan leen dal ci yoon ànd ak tekk ak teey dawal bu rafet ba bu ñu mënee ñëw ba yegg si ba Tiwaawan te dara du xew yàlla na ko yàlla dogal ñu mën a ñëw ba yegg te dara du yàqu kon nag mu laaj leen ñu wax jëm ci jëm ci ordre ak discipline ak orma bi nga xamante ni moom lañu soxlawoo ci ñoom ndax ordre discipline respect lu mu jiitu rek loola mënees na ci yaakaar xalifa bi ci boppam wax ni kon mu ngi ñaan chauffeur yi ñu àndandoo ci loolu jëflante ko ak ñiy ñëw mu di eh, ñiy jël oto yi ci àndandoo bu ñuy àndandoo jàppalante ba yegg si ci jàmm jàmm rek am yàlla def ci bis bi wax na ni itam ñi mu bokkal liggéey bi jëm ci wàllu syndicat yi maanaam syndicat yi nag bu ñu ko waxee mooy ñi nga xamante ni ñooy daggu ngor lu sàmm seen ngor te nekk ci biir société yi wala ci wàllu éducation wala boog ci fépp foo xamante ni barabu liggéeyukaay yi la te mu laaj ñoomit it ñu xam ni am nañu wàll ci lii ñu ñëw fekk si wuy si woote xalifa bi defe naa loolu su fekkee ni ëppul moom rek la ñu ni woon nañu ko wax jëmale ko ci bis bi nga xamante ni ni ko sëriñ Abdoul Hamid waxee bisu jàmm la bisu yewenal jàmm la ku ne xam na ni jàmm mooy tax ku ne tal jàmm bu amul sëriñ Abdoul Ahad Mbacké yal na yàlla dolli ko leer daan na ko wax sunu sëriñ Seydi Cheikh Ahmed Tijane daan ko wax naan ko jàmm bu amul lu waaye di def dana ko wéer ba keroog jàmm jàmm jooju nag moom la xalifa bi joxe ndigal ci ni ren chiaaru gàmm gi nañ ko teg jëmale ko ci waxantewaat jëm ci jàmm wu jiital waxante wu rafet bokk na ci liy tax ñu àgg ci jàmm te mooy dialogue jiital ko nag ci jamono boo xamante ni ku ne yaa ngi fell sa yoon bopp defe naa tey jot na sëkk mbokk yi séq yéwénal yiwu senegal ñu àndandoo am toogaay boo xamante ni toogaayu waxante rafet lay doon pour jéem a seet nan lañuy ñuy def ba Sénégal yegg ca yiw ga donte la wax nañ ni Sénégal dal na xel li fi jot a am waaye wax nañ ni ab jullit du dal xel retaax boo dalee xel dangay ngay bàyyiwaale xel ñaawal njort parce que sunu maam sëriñ Babacar Sy daan na wax ni jàmm day ñaare danañ koy ñaan di ko wootal mu ne waaye jàmm la koy ñaan di ko wootal jëfandiku la ndax daf daan wax ne ah bu ñu nee lii raam ci ñag bi la jëm ñu ne lii raam ci ñag bi la jëm jëfandiku la waaye du wax ko rek bàyyi mu ni ndax liiraam bu yegsee dana gas bu gasee dana dëkk bu dëkkee dana yàq yàq lu warul woon a yàqu mu ni te koo xamante ne nag boo fekkee ni bàyyi nañ la nga yegsi jëfandiku jëfandiku ba yàq loo xamante ni warul a yàqu ñëpp ñoo war a taxaw ci préparé wu fexe ba kar ko ba du yegsi ci ñag bi bay mën a dëkk bay mën a gas bay mën a dëkk bay mën a yàq loolu yal na yàlla musal ci Sénégal yàlla yàlla musal ci sunu réew yal yàlla musal ci sunuy pénc yàlla na yàlla musal ci mbooleem askanu senegaal waaye yal na yàlla delloo siwaat sagoy déggoo ak juboo ak dëppoo jëm ci li nga xamante ni ku ca jeex daj ca sa bopp te mooy njariñu Sénégal jëm ci wàllu àdduna bi jëm ci wàllu diine ji jëm ci wàllu péccëxoo sax ñiy péccëxoo sax bu jotee war nañu ñëw jàpp ci seen loxo wan leen ni pëccëxoo baaxul ñii par parparloo sax war nañu dem ci ñoom wan leen ni parparloo baaxul ndax fa muy yeggale pénc du ko yeggale lu dul ci musiba yàlla na ci yàlla musal sunu réew loolu rek laa amoon lu ma ciy dolli ngeen baal nu yokk ko ci li nga xamante ni mooy yaatal message yu